li la sonal bàyyi ñëw di la ndax naan jàngal ko kaamil ak xaalis la ñu wut ci yow rek amul tuyaaba jàng kaamil amul tuyaaba ci néew man maa ko wax amul tuyaaba ku ma indil dalil nag bu jubee ma nangu nee ma yonente bi def na ko wala saxaaba yi def na ko wala yonente bi jàngal na ko wala saxaaba yi jàng yonente bi dee na dee na ndax saxaaba yi toog nañ tas kaamil ku nekk di jàng kaamil boo xam da ngay tas kii jàng jaar fii kii jaar fii kii lu caaxaan yooyu nañ ko bàyyi te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 malaat yi nga xam ne dañoo amee ay feebar ci nit yi bidaa euh, yi tey nag kenn ci malaat yooyu lañu indi fii ngir faj ko wala jox ko ay comprimé euh, yoo xam ne xëy na dina ko jariñ ci feebaram bi ko dal euh, malaat bi nag malaat bu mag la kilifa la muy oustaz Omar Sall loolu lañ koy wax maanaam oustaz mor sall du oustaz nak mom waye loolu lañ koy tuddé waye nak mom métier deug deug buñ ko bëggé xam katu ciosan la manam ci reen ak sunguf ndoxum siti jangoy kadior mel nonu fofu la xam ma ci jëme waye diine nak mom lepp lu mu ci wax erreur du ci mëna ñak ah, erreur du ci mëna ñak ndax du am mom Euh, du tey nag waaye saa su nekk day def ay conneries ci yi muy génn di wax loolu nag euh, xam-xaw bu néew ak fit wu rëy daf koy indi léeg euh, masala mii mu indi nag di ci aalu ba làmmiñ di bëgg teppeeku masala moo xam ne mu jeex la ba noppi maanaam muñu mu mafruxun minha waaw bu ñu paree ci moom la di ci taxaddi dit nag pour mu indi la ci ay lay loolu moom ci ndox ak feebar lay dugg la gënoon ci moom nag mooy mu yam ci pajum cosaanam tey góorgóorlu ci diine lu man waaw waaye wàcc minbar bi ndax foofu du place minbar nag ci senegal képp ku am fit mën nga faa taxaw ndax amul lu ñuy nattee nit pour teg la fa waaye su fekkoon fu ñuy teg ay nit la nga xam ne ku fa nar a jaar dafa am looy déposé wala nga joxe ko wala looy prouvé ci wàllu xam-xam Omar du fa mos a toog ci àdduna jàngal alquran néew nag mom la ñew ngir wax ne lola manam ay caaxaan la waxuma ne mu wax ne ay caaxaan la waye mu taxaw place yalla di wax ne mukk du ci jot manam ki nga xamne mom moy neew ba faatu lim ko jangal du ci jot ba abadan ay furas manam, lu jeex la manam lolou ci ci caa ci ay nga ko tek manam abadan nit ku du ci jot abadan nit ku du ci jot nak loolu nag boo koy wax danga ko war a teg ci ay firnde yu wér yaa laytahu nag moom mu am firnde yooyu waaye malheureusement amul firnde yooyu joxewu ko ci tàmbali maa wax ji ba nim jeexee ñu ñëw nag ngir topp lenn ci lim wax ngir leeral ko euh, li mu tegtaloo nag wala léegi li muy indi te jàpp naa ne ci la bëgg tegtaloo mooy xadiis abu hurayra moo ne yonente bi salaa sallam nee na ida maata al insaanu inqataa anhu amaluhu illa min thalathatin illa min sadaqatin jaariya aw ilmin yuntafau bihi aw waladin saalihin yaduu lahu loolu mooy tegtale mu teg ca wax ne amul képp ku faatu amul lenn benn tiyaaba bu lay fekk sa bàmmeel benn tiyaaba bu lay fekk sa bàmmeel lool nag erreur la erreur bu rëy rëy rëy ndax da weddi waxu yonent bi sallallahu alayhi wa waaye itam danga ñàkk dégg xadis bi nga xam ne moom nga indi ñu liir ko benn par benn yonent bi daf ne ida insaanu nit ki bu faatoo in dog na anhu ci moom nit kooku amaluhu ak jëfam jëfam buy ñëw ci moom di ko jariñ ca bàmmeelam di jóge di jóge fenn di ñëw ci moom loolu dog na jeex na ndax faatu na moom liggéeyatul dara maanaam lépp loo xam ne amal la boo xam ne jëfam la moom doomu aadama bi moom doomu aadama bépp jëfam dog na di ñëw di agsi ci moom di ko fekk foofu ci bàmmeel ba ci lu baax kon ñun li ñuy wax du jëfam ñun ñoo jàng alquran est-ce que loolu jëfu néew bi la ñun ñoo sarxe est-ce que loolu jëfu néew bi la euh, ñun ñoo ko defaral nangam est-ce que loolu jëfu néew bi la Eh, ñun ñoo tabax jàkka tabaxal ko ko maanaam defal ko ko ne ñun ñoo ko def niyaabatan anhu est-ce que loolu jëfu néew bi loolu suñu jëf la ñun lan lan la xadis bi wax ne moo dog kon li xadis bi wax moo dog mooy amaluhu huwa moom doomu aadama bi faatu jëfam dog na amul lu koy fekk si waat loo xam ne daa naan jëf ju bees la jum jëf wala lu mu amoon tiyaaba tiyaaba ja di beesaat di ñëw di ko fa fekkaat loolu amut ñetti mbir yii rek la la la la la jëfam mën a ñëwaatee ci moom mooy mu defoon fi loo xam ne day wéy di dox sadaqatun jaariya wala mu bàyyi woon fi xam-xam bu ñu jariñu li feeg ñu ngi ko jariñu ak jëfam la moom jëfam moom doomu aadama bi loolu leer na aw waladin saalihin yad'u lahu ndax moom moo fi jëf loolu doom ju baax jooju moom moo ko yar bàyyi ko fi lu tax ñu di yokk ci saalihin waladin saalihin salaax googu nekk ci xale bi moom moo ko ci def moom moo ko ci def léegi moom moomu def ci loolu nag xale xale bi di ko ñaanal kon dafa mel ne jëfam ji ji mu jëfoon moom mooy continuer di ñëw kon mbir mi fan la nekk mooy jëfuwaa ji nga xam ne dafa faatu amul lu ci ñëwaat bees di beesaat di ko fekk si ci bàmmeelam wala tiyaaba ju amoon ci ak jëf tiyaaba jooj di beesaat saa su nekk di ko fekk si waat ci lu dul ñetti mbir kon jëfam lañu nekk waaye jëfi keneen ju ko yéene jëmale ko ci moom nag loolu nag loolu bokkut ak xadiis yi ci boppam su ñu demee ca jëf jooja nag nga xam ne nit ki moo koy def yéene ko kafaatu ah kooku nag danañ ci gis yu yaatoo yaatu waaye li ma bëgg a leeral mooy inqata anhu amaluhu huwa almayitu inqata amaluhu lam yanqati anhu amalu gayrihi ilayhi loolu xadiis bi waxul loolu waxul ci keneen di defal leneen néew bi moom dafa wax ne néew bi du jariñoo waat jëfam lu dul ñetti yoon yii rek la ko mën a jariñoo euh, beneen bi euh, maa ngi laaj omar sàll moom ak képp ku jàpp ne li omar wax wér na yonent bi dafa wax ne ñetti ñetti yoon yooyu rek la ay jëfam mën a ñëwaatee ci moom moom néew bi du keneen ki de maanaam man sama jur dafa faatu yàlla ko yàlla yërëm moom jëfam duutul agsi ci maanaam jëfam jum jëfoon yoo xam ne daf koy fekkaat ci bàmmeel ba nii amu ko lu dul loo xam ne da ko fee bàyyi muy ab sadaqa boo xam ne mi ngi dox nii waqfu bu mu def defal ko yàlla nit ñi di ci jariñu loola di wéy loola fii loola mi ngi am loolu da koy fekk ci bàmmeelam xam-xam bi mu bindoon bàyyi fi nit ñi di ci jëriñu di ci jàngee di ci gindeeku luñ ci def rek da koy fekk foofu loolu benn e beneen bi mooy xale doom ju baax joo xam ne daf koy ñaanal man ma nekk doomam léegi man maa ngi koy ñaanal damay jàng alquran man man man maay jàng du paayi man maay jàng alquran saa su nekk tiyaaba ji ma ci am ma ko yéene ma ko koy yéene ndax mu loolu ci jëfam la mii mel ne kon moo doon jàng alquran kon faaw mu am ci tiyaaba kon man su ma jàngee alquran même su ma waxul sax ne maa ngi koy yéene kon moom dana ci am tiyaaba kon alquran dees na ko jàng mu fekk si néew ba surtout nag doom ji nga xam ne moom la fi waa ji bàyyi doom jooju di jàng alquran di ko ñaanal bàyyam loolu mooy mbir mi léegi nag li ñu war a leeral laata ñuy jóge dem ci leneen mooy xadis bi waxul ci man jëf ji may jëf di ko yéene sama bàyyi déedéet sama jëfu bàyyi ba faatu jëfam mënatula agsi ci moom lu dul mu jaare ci ñetti yoon lenn lu mu fi defoon bàyyi ko muy xam-xam fi bàyyi woon wala doom ju baax ju mu koy ñaanal yooyu moo mën a ci moom kon hadis bi ak fi kii fi fi waa ji taxaw di wax bokkuñu muy benn ñaareel ba nag ñu door a ñëw ci beneen phase bi nag mooy est ce nit mën na jàng dara maanaam mën sarxe sarxe bi sarxeel ko way juróom mu faatu est ce dana aksi ci moom ñaareel ba est ce que bu jàngee alxuraan yéene ko way juróom bu faat dana agsi ci moom ñetteel ba est ce que bu euh, defee dara lu baax maanaam mu tabax ak kër wala mu mu mu mu tabax ab jàkka ne jàkka ji dama ko tabaxal sama way jur yéene ko ko maanaam comme si que moom moo ko tabax léegi la fay am ci tiyaabay ku tabax jàkk yépp est ce que dana àgg ca kafaatu wala déet loolu dañoo war a d'accord ne werante am na ci ñoo même ñun ñi ko gëm duñu wax ne non kon ñëpp ko dëpp déedéet am na ñu wax ne loolu ay jëf yoo xam ne ay ibaadaat badani yoo xam ne du agsi ci nit ki lu mel ne julli lu mel ne nangam lu am ñu ne loolu du àgg jumhurul ulama nag wax ne dana egsi ci waa ji buñ jàngee alquran dana dana dana ko jariñoo bu ñu saraxee saraxeel ko dana ko jariñoo buñ ko defalee lu baax dana ko lépp luñ ko defal ci lu baax dana ko jariñoo su fekkee noonu dañ ko def ngir yéene ko ko ngir mu nekk tiyaaba joo xam da koy fekk ci bàmmeelam loolu li ëpp ci borom xam dañ ko nangu loolu du samay wax ibnul qayyim moom moo wax loolu ak ñeneen du moom kese te ñoom tooguñu ñi wax ne mën na nekk te ëpp ci borom xam-xam yi ñoom tooguñu rek wax ne non mën na nekk kon gars yi daan ne mën na nekk déedéet seen mën na nekk googu dañ ko teg ci texte <laughs> li waa ji doon wax léegi naan diine day tegee ci texte ñoom seen wax ji ñu wax ne mën na nekk dañ ko teg ci texte texte bi nag leneen lay wax ñu xiyaas ci jàng alquran <laughs> te xiyaas maanaam ci adilla yi la bokk ci masaadir yi la bokk بخاري موم وحشي صحيحا كتاب الجنائز باب موت الفجأة رقم حديث ب 1388 موحنا عائشة وحنا نه بن واي نيو نتي يونتي صلى ان امي افتلتت نفسها واظنها لو تكلمت تصدقت فهل لها اجر ان تصدقت عنها قال نعم maanaam mu ne ko sama yaay benn waay moo ñëw ci yonent ne ko sama yaay dafa faatu faatu gu gaaw jàpp naa ne déegi daf koo bett mais su fekkoon ne ci diggante bi manoon na fee wax wala waxoon na fi dana digle ñu sarxe ko loolu damaa jàpp loolu rek léegi moom mi faatu faatu gu gaaw dem na xalaas léegi rek est-ce que dina am tiyaaba su ma ko sarxelee man maanaam su ma sarxee génnee sarax sarxeel ko ko est-ce dina ci am tiyaaba moom yonent bi ne ko waaw waaw mooy sa jur faatu na faatu gu gaaw soo ko sarxeelee soo ko sarxeelee loola dina ci jot moom dana nekk tiyaaba bu koy fekk ca bàmmeelam loolu mu ngi ko indi ba mot faja boo demee ci muslim mi ngi ko indi ci kitaabu zaka baabu wusuli thawaabi sadaqati an il mayiti ilayhi boo demee ci saxi muslim ca baabu wusuli thawaabi sadaqati an il mayiti ilayhi da nga ko fekk maanaam mooy bunt ba da ko ibbi pour wone ne maanaam tiyaabay saraxeel niiw dana yegg ci néew bi bunt booba ci la xadis bi nekk boo demee ci muwatta u malik kitaabul aqdiya da ko fekk ci baabu sadaqatil xayyi anil mayiti maanaam ni aji dund gu sarxel ku faatu da ko fa fekk léegi yii yëpp lan lay wax moo di ne nit ki kon dajji na waxu Omar Sall Omar ne amul benn tiyaaba buy fekk nit ki lu dul ci ñett yooyu lu dul ci ñett yooyu mooy nit ki moo fi bàyyi woon sarax moo fi moo fi defoon sarax buy kon ne walla moo fi bàyyi woon xam-xam wala wala wala waaw léegi eh, nit ki nga xam ne dafa sarxe sarxeel ko ki faatu yonent bi moo wax ne loolu dina àgg ci moom loolu dina àgg ci moom waaw su fekkoon ne daf ne ko damo alquran boko jang da ngay am tiyaba comme bo sarxé da ngay am tiyaba bu ne ko won nak dama ko dama dama dama dama ko bëgg jangal alquran est ce que bu ma ko jàng dana egg ci mom wala dit lo japp ne mom la yonent bi di wax waaw wala dit kon li waron ci omar moy mu wax ne masalam yi de dañ cee wuute maanaam masalam bu ñu jàngalee nit alquran est ce que dina agsi ci moom wala déet loolu dañ cee wuute am na ñu wax ne dina agsi am na ñeneen ñu wax ne du agsi ci moom moo loolu mooy li gën a néew waxuma laa muy dem nag bay tarjix masalam yi ak di wax ne di indi adilla yi pour xam ban ra'yu mooy ar ra'yu raajix ak ban mooy almarjuux loolu xam-xam a koy def waaye li gën a terre mooy mu nangu ne ñu wuute am na ci am na borom xam yi d'accord ne dina àgg ci néew bi am na ñu wax ne du ca egg waaw am na ñu wax ne du ca yegg ñi wax ne dina ci yegg nag seen dalil lii ma la jox na maanaam xadis bii ma la jox benn la ci xadis yi nga xam ne day tegtale ne kon loolu mënees na cee xiyaas jàngum alquran eh, boo demee ci ibnul qayim ci téeréem bu ñuy wax arruux ay masala yu baree bari yu aju ci ruu yi la cay la cay kii am na masalam fukkeel ak juróom benn mim ko tuddee al masalatu sadisatu achar intifaacu arwaaxi l mawta bi amali l gayri njari jariñu jariñu gog ruuwu ñefaatu ruuwu ñafaatu dina ko jariñu ci jëfi keneen du <laughs> ci jëmam de jëfi nit ki moom ñetti mbir yi rek la koy jariñoo bi mu fi nekkee ni mooy jëfam jim jëf noonu ànd ak moom ak jëf joo xam da ko fay bàyyi jëf jim fi bàyyi te mën koo fekk si nag ñetti yi kese la leneen lu ko ciy fekk nag ci ay tiyaaba loo xam ne keneen a ko def waaye moom li mu fi def te mu mën koo fekk ñetti mbir rek la mooy sadaqa jaariya wala din saalix yad'u lahu ak ilmun yuntafa'u bihi ak yu mel noonu ñett yooyu mooy yi ma fi bàyyi te man ko fekk man koo fekk foofu mu nekk saa nekk waaye jëfi keneen ndax dana ko fekk fekkam déet loolu xadis bi ci loolu ibnul qayim nag ci loolu lay wax mooy intifaau arwaaxil mawta bi amalil gayri jariñu goog ruuwu jafaatu dana ko jariñoo ci jëfi keneen keneen moo koy defal waaw mu indi masala boobu nag laaj est-ce que ña faatu danañ jëriñoo lenn ci liggéey yi ñii ñi fi dund ñi fi nekk ibnul qayyim ne loolu nag ci ñaari anam lay ame mu ne nag te lii may wax nag ahlu sunnati min al wa ahlil xadis wa tafsir ñoo ci dëppoo mu ne ñaari mbir yi nga xam ne mën na faa jaare njariñ mën na faa jaare di ñëw ci ñi ñi faatu mooy loo xam ne waa ji faatu sababoon na ko bi muy dund moom sabab moo sabablu lool bi muy dund moo mu tabax dara wala mu def fi xam-xam bàyyi ko fi daati dem loolu moo ko sabab xale bu baax bi koy ñaanal doom ju baax ji koy ñaanal moom moo ko sabab loolu benn la mu ne wasaani duaaul muslimina lahu wa istigfaaruhum lahu wa sadaqatu wal xajju ak yu mel noonu maanaam beneen côté bi nga xam ne mën na ko fa fekk ci njariñ mooy ñaanu nit ñi ak seen jéggalu bi ñu koy jéggalul yàlla ak di ko sarxeel ak di ko ajal ak yu mel noonu loola itam lu ko mën a fekk si la foofu yaa ngi dégg mu des nag mu ne nag ñu wuute ci jaamu yàllay yaram al ibadatil badaniya comme woor comme julli comme jàng alxuraan comme zikkar mu ne loolu est ce que dina ko fa fekk dina fekk si néew bi wala déet maanaam nit ñi buñ ko ñaanalee nii tàllal seen loxo ñaanal ko dana ko fekk moom loolu mut tafaq ñëpp ci dëppoo euh, bu nit ki euh, euh, sarxee dana ko fekk mutlaqan yooyu yëpp dana ko fekk ko loolu kenn wuutewu ci ñu wuute nag nit ki suñ ko wooralee maanaa loo xam ne ay ibaada ban lee yuy def nit ki bu ko wooralee wala mu ajal ko wala mu jullil ko wala mu jàngal ko alquran wala mu zikkaral ko est ce que loolu dina ko fekk ibnul qayim daan ne madhabul imaami ahmad wa jumhuru salaf wusuluha maanaam xalaati imam ahmad ak ñi ëpp ci salaf yi mooy dana egg si ci moom buñ ko jàngal alquran dana egg si ci moom loolu ibnu qayim nee na jumhuru salaf ñoom ñoo wax loolu Ahmad loolu la wax mais jumhuuru salaf dañ ne dana egg ci moom ci la traité nag ci biir masala boobu lu bare bare bari ci wàll woowu tontu nag yu bare bari ci gaa yi wax ñoom Omar Sall Ibnul Qayyim mooy tontu di saxal ne alquran mënees na koo jàngal néew te loolu dara nekku ci day egsi ci moom wax ne wa amma qiraatu alqurani wa ihdaa'uha lahu yaani lil mayiti tatawuan bi xëyri ujratin te loolu d'accord naa maanaam Omar Sarr bu fekkoon loolu la wax nga xam ne paa yi ñëw di jàng ci alxuraan kenn waru leen a fay waru ñëw fayeeku ci masala moom war nañ ci ànd Ibnul Qayyim ne su fekkee ne ki koy jàng ak ki koy maanaam wala boog ki koy jàngal loolu fayeeku ci dara wala nit ki du ci fay dara su boobaa loolu dina àgg ci moom yasilu ilayhi kama yasilu sawaabul xajji wa sawm wala sawaabu sawmi loolu day agsi ci moom door a tàmbali nag moom Ibnul Qayyim pour tontu nag bépp wax boo xam ne wax nañ ko salaf yi xamuñu ko woon ak yonent bu fekkoon lu baax la gaa yi ñoom ñoo ko ñu ko def yooyu yëpp Ibnul Qayyim tontu nag ñu day béyee guddal waaw léegi nag kon loolu lan lay tekki moo di ne wuute am na waaye li ëpp ci borom xam-xam yi comme ni ko Ibnul Qayyim waxee ak li ëpp ci salaf dañoo nangu ne loolu boo jàngee alxuraan nga yéene ko néew bi dana agsi ci moom kon kay <laughs> lan moo ci nekk mun ñu bari ci bu ñuy wax dañuy jàpp ne non Sénégal ñoom ñoo ko def pas-pasu Sénégal la borom fekk masala la boo xam ne dañu dañ cee pare su la neexee nga ànd ak aqaliya bi ñi gën a néew te wax ne du du ca egg wala du ca jariño néew bi du ko jariño li tax du ko jariño du gene hadith bi motax li tax du ko jariño ñom dañ ne manam ay ay ki la manam ay ibadat badaniya la yo xam nit ki moom mokoy def su fekkone dañu dagal la nek ku nek man nga julli ku kon ku nek man nga baye sa sa nek kon kàccoor fatu ngay xey diko ko wal nangam nangam wala ngay xey diko jang jàng alxam ci yoy yoy lañ me nekku ñu hadith bi ñom nekkuñ ci ne inqata amaluhu inqata amaluhu nit ko feru rek mokoy wax ne kon keneen mënu ko jàng amaluhu nga ne keneen waaw léegi nag eh, ibnul qayyim moom mi nga xam ne mooy taalibe ibnu taymiya bi gën a mag te ñu bari dañuy indi ay amal amalgaam di wax ne téere bii di arruux bii ma tiim nii di ko liir ibnu qayyim mi ngi ko taalif avant mu gisee ak ibnu taymiya maanaam bëgg a wax ne kon bi mu gisee ak ibnu taymiya Ibnu Taymiya dafa raxas bidaa yi muy wax nii dafa ko raxas ci moom jàngal ko sunna mu bàyyi loolu mu bàyyi loolu <laughs> eh, am na ñeneen ñu gën a garaaw sax ñu wax ne Ibnul Qayyim taaliful téere bi di ko di ko dàqal Ibnul Qayyim taaliful eh, li nga xam ne moom mooy eh, téere bii di ar yooyu yépp dara du ci dëgg dara dara waaw ibnu Qayyim moo ko taalif benn ñaar min ngi ko taalif gannaaw bi mu gisee ak ibnu Taymiya ba ibnu Taymiya faatu ci la taalif bi kon li ci def ci ay pas yëpp mooy la mu ci ibnu Taymiya la ko ibnu jàngal la mu xamee ci ibnu Taymiya ndax tudd na sax lu gën a garaaw lii ñuy wax ay jàngal alxuraan néew wax na ne am na koo xam ne ku bañoon ibnu Taymiya kon gis na ibnu Taymiya ba pare am na ku bañoon ibnu Taymiya mu gis moom nee moom mooma nettali ne bi mu gisee bi Ibnu Taymiya faatoo moom gis na ko ci nelaw ba laaj ko ay masala ci wàllu miraas Ibnu Taymiya tontu ko ay masala masala yooyu Ibnu Taymiya faatoo ba pare tontu ko kon téere bi moom avant après Ibnu Taymiya lañ ko taarif la ca nekk nag mën na bañ a dëppoog say xalaat nga weddi ko waaye moom li muy wax mooy gëm-gëmam te mooy gëm-gëmu sëriñam waaw mooy gëm-gëmu sëriñam ñu door a ñëw nag ci sëriñam moom bi mu faatoo ci boppam lan lañ ko defal est dañ ko jàng alxuraan wala dañ ne kenn du fi jàng alxuraan léegi buñ ko jàng alxuraan ñen ñooy jàng alxuraan boobu ay ay dof lañ wala kan moo leen fi indi wala ay noonu comme ni ko gars yi doon waxee ne noonu ay ay nitu sufiyanke ñoo fi ñëwoon doon jàng alxuraan wallaahi almustaan li ma njëkkoon a wax nag euh, ci ar ruux ibnul qayim moom moo ko bind ci page 173 mooy masalam fukkeel bi ak juróom benn ci xadi ci ci téere bi téere bi nag fan ñaar fukki masala la ak benn masalam téeméer bi euh, masalam fukkeel bi ak juróom benn moom moo nekk noonu waaw moo nekk noonu léegi nag buñ ñëwee ci euh, <laughs> sunu góor gu mag ga te mooy ibnu taymiya bim faatoo boo demee ci téere bu ñuy wax euh, albidaaya wan nihaaya albidaaya wan ku ñuy wax ibnu kathir moom moo ko taalif ibnu kathir nag ci taalibe ibnu taymiya la bokk ibnu kathir moomu moom moo wax ci téere bi ci tome 18 page 297 ne Ibnu Taymiya mi ngi faatu bis sàngam euh, weer sàngam at sàngam daateem di nettali nag ci biir faatu gi nag ba mu faatoo sang sang maag yu mel noonu mu ne mbooloo mu bari ba jéggi dayoo ñoo ñëw ci biir palaas bi Ibnu Taymiya nekkoon te mooy alqalaa ñu may leen ñu dugg Molo mu bari tok ci ibnu taymiya bimfan fa na mi tud ni fatu rahmatullahi alayhi gan avant ñu koy sang nee ñu jang fa alquran jappal bobu jang alquran nit ki faat ba nopi ñu tek ko sen ken sang ko ñu tok di jang alquran est ce que loolu sax mos am ci aduna est ce que sax ñi senegal ñu danañ def lolu mam nit ki mi ngi ci morgu bi ñu fekk ko ci morgu ba tok jang fa alquran dañ fay jàng alxuraan pour jàng alxuraan noonu rek wala dañ fay jàng alxuraan pour lan. te ñi koy def est-ce que ay ay maanaam ce que ay como como la may ñu dugg ci foofu pour gis ko sax. daxala jamaat jalasa jamaatun indahu qabla alxasli wa qara'u alqur'ana wa tabarraku bi ru'yatihi wa taqbilihi ñuy barkeelu ci gis ko gis gis ibnu taymiya képp dañ ci barkeelu ñoom gis ko tiim ko nii ak di ko fóon tey sama masala du masalam barkeelu tey jàng alxuraan moom mooy masalam ñooñu di jàng alxuraan est-ce que ay jaahil lañ maanaam lu tax ñuy bàyyi ibnu taymiya faatu na ponkal mu jàngaloon jàngaleen leen sunna fan lañ nekk bay bàyyi gaa yi ñuy dugg ci foofu di fa al alxuraan bay ibnul kasiir mi nga xam ne moom ci taalibe yi la bokk moom mu bind loolu ci téereem loolu yéemewul li gën a yéeme mooy loolu li def loolu ay jigéen lañ ay góor lañ ay jigéen mbooloom jigéen ñëw def noonu wa xadara jamaatun min annisaai fa faalna misla dalik maanaam mbooloom jigéen ñëw def lu mel ne li mbooloom góor mi def mooy ñëw nañ jàng alxuraan barkeelu ci gis ibnu taymiya door a génn léegi nag ñu des fa ci sang ak yooyu bañ sàngee ba pare booy kon ne sang baag mbooloo maag nañ doon raj daj pour laal kii bi nañ séddoo eh, ndox mañ ko doon sàngee eh, di ko naan nañ dammoo jàgg ku nekk jël ci ab ab ab yor ko di ko barkeeloo ak ak ak raj raj looga nit ñi di ci sànni seen seen seen seen seen kaala ngir mu laal jàgg ngir ñu barke yooyu yëpp noonu dem ko tëb moom waaye li ma ci kii mooy wa xutimat lahu xatamaatun kathira bi saalihiya wal balad maanaam ñu jàng ko ay kaamil yu bare bare bare loolu <laughs> chettttt wa taraddada annaasu ila qabrihi ayaaman kathira leylan wa nahaaran saa su nekk nit ñi jóge fu nekk di ñëw ci xabru ibnu taymiya léegi lii ñu koy def moom ay kon lañ moom yoo xam ne xamuñu dara dara xamuñ dara ci sunna man loolu jaaxaluma waaye lu tax nit ñi bàyyi leen ñu koy def ak bariwaayu nit ñooñu lu tax nit ñi bàyyi am mbooloo ñëw di xëccoo lool di ca barke lu tax waxuñu leen lii du ak ña ko doon def kan moo mën a prouver ne ay jaahil lañu est-ce que du borom xam-xam yi Ibnu Taymiya doon jàngal ñoom ñoo doon xëccoo ndox bi ndax ñoo gën a xam Ibnu Taymiya su fekkee xam la te liñ ko tagg ci tagg yu kawe wone ne moom daanaka bu yonent bi jàlle daanaka moo ci xaw a topp ci wàllu xam-xam ak leer gi ñëw ci moom ak niñ ko yëkkatee ak xabru ba la ca nekk ci ay malaaka bo ñi way way yooyu ñoom mën nañoo séddoo jàgg ñi way way yooyu mën nañoo naan affaire yi ñi way way yooyu mën nañoo barkeelu ci gis ibnu te ay ponkal ay borom xam yu jàngal ñoom ñoo def loolu kon omar sall li ko waroon dëgg-dëgg mooy jàng jàngi wàcc min bar te dem jàngi waaw yërëm naa nag képp koo xam ne da toog ci jàkka Omar Sall toog sa kanam di la waar wala mu lay wax lenn ci diine waaw yërëm naa la torop torop torop waaw li ma ko yéene woon dëgg dëgg man de bu doon wax waxi reen ak di jaay sunguf ay sunguf ak xass wallahi wallaay waxuma la duma ci wax dara waye lepp luma metti dana dem ci mom ndax xamna ne jekku na lol mom limu nil te nangou ko baye rek te xamu ci dara moy diine dara ci góor nit nak mën nga xir ci dara bëgg lol nit ñi jup te fekk yow xam dafa dafa am outil yo wara am dafa am loo war am bagage boo war a am pour mën a xir sinon rek da ngay xir ci loo xam ne baaxul da ngay xir ci loo xam ne ay njuumte la maanaam jaahil warul xir ci diine di ca woote jaahil moom jàng rek jaahil moom dem jàngi rek amma xir ci diine nag bay woote te yow xamoo mais man nga woote ci loo xam ne ay caaxaan la mooy li Omar Sall di def nii nga ñëw fekk li ñu wuute nga ne wuute amu ci kenn mënumaa indil benn lay défier nit ñi nag te yow ngay jaaykatu garab nga defee borom xam-xam bi yëpp ne ñii nangam kenn mënut indi loo xam ne naa nangam ak nangam yonent bi dindi ko ku ma indil man da ma nangu yow tolloo ci état bu nangu ak bañ état bu gëstu ak di laaj borom xam-xam bi ak di gëstu téere yi maanaam lu mu gàtt gàtt nit mën na fekk ñu ne lii dañ cee wuute wuute bu rëy surtout nag bu ñu nee jumhuru salaf dañ ko nangu yow nga d'accord ci d'accord ci noppi woo tojoo sa gémmiñ waaye di welweli di wax ne loolu amul fenn ci àdduna loolu dañ laa war a ñaanal waaw lii nag mooy àdduna yi tey ñi xamul dara ñoo la ëpp ay woote ñoo la ëppi woote te fas yéen wu ñoo noppi pare nañ pour diingat ku nekk ci àdduna bi waaw pare nañ pour diingat ku nekk ci àdduna bi moom la borom xaxoo di wax nag zamanuna ka ahlihi wa ahluhu kama tara sunu jamono ji moom yàqu na kenn du ko wax dañ naan jamono ji daal comme waa këram rek comme comme ñi cay dund rek ñi cay nag ku nekk xam na leen gis nga Omar Sall a ngi nii LCH ku nekk woote ci loo xam ne ay caaxaan yi kese di défier ña xam nag ñi xamul ñoo leen di attaqué lool nag bu amee moom ku nekk na na tëju ci ruqam tey ñaan yàlla rek yàlla faat la ci njub te musal la ci yëngatuy jamono yi wasalaamu alaykum wa rahmatullah ñu ko sëy bi de tas na balaa ngay leewaat sa borom kër moom keneen jaar bi nga dem songu beneen góor man ma ne bu ko nax ba góor googu takk la te sa intention mooy que sëy moom sëy contrat boo xamante ne kenn du ko bind yaa ko nar ci sa xol fas ko sëy moom su ngeen sëyee un rek nga tàppaas ko mu fase la nga dellu ci këri jigéen dina waxtaan ak ci jëkkëram mu fase bu ko xam ne ci loolu ànd ji góor dina ko def jigéen dina ko def yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne laana allahu almuhallil walmuhallalu la yàlla na yàlla rëbb góor kuy baara yegoo ak jigéen kuy baara yegoo ñaareelu jigéen baa ngi waaw vidéo bi nag mbokk yi ay jàngat yu mat a bàyyi xelan ci ndax kii di wax ñaari kilifa yii di wax ci vidéo bi oustaz Omar Sall moom daa mel ni day jàngale di lim ay jigéen ay jigéen lay lim ñu yàlla rëbbu waaye mu indi xadiisu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam laana allahu al muxallila wal muxallala lahu di ko firee jigéen maanaam mi ngi waxal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu soreek la mu wax lool ndax yonent bi ay góor lay wax fii dara luy niroog jigéen lu xeetoog jigéen amut fi yonent bi ay góor lay wax ñaar la tudd ci xadis bi ñoom ñaar ñëpp góor lañ koo xam ne nag sa wàccuwaay ci njàng mooy da nga tiim hadis bi di ko firi yaakaare ko jigéen di ko firee jigéen yal na yàlla yërëm ña ngay jàngal yal na yàlla yërëm ñi lay déglu te amuñu ràññee amuñ ak xam dëgg-dëgg doy na waar lool koo xam ne fii mooy sa tolluwaay cim njàng sa wàccuwaay ci jotaay yu mel nii mooy di déglu di jéem a jariñu di jéem a xam waaye bu dee yaay jàngale yàlla na yàlla yërëm ña ngay jàngale ñu lay déglu te ràññewuñ laana allahu almuxallila walmuxallala la fii dara dara dara dafay tegtalewut jigéen te wax dëgg yàlla ku mënta xàmmee góor wala jigéen la baat yi firi moom tolluwaayam suufi na lool lool lool Sénégal nag ñu bare bare dañuy jàpp ne xam-xam moom mooy làmmeñ wu fasaaxa kula la dàq wax ca kaw dàq laa yuuxu dàq laa wax lu leer rek kooka mooy borom xam-xam ba wallahu almustaan yeneen njuumte yi nga xam ne it sëriñ bu sayri sàll jubbanti na ko ci waxam ji muy yàq yin yàq baat yi te masque yi it yàqin wi da koy jox yeneen maana yu bokkul ak ya taxoon yonente bi sallallahu alayhi di wax euh, moom it lu doy waar la lu doy doy waar la wax dëgg yàlla te moo njuumte lee jàppee góor jigéen ñàkk xàmmee góor ak jigéen ci waxinu arab ci waxinu yonent bi yëpp am na lu muy tekkale waaye ñu bàyyi xarit ne moom oustaz Busayri Sàll mi it muccul ci njuumte yooyu muccul ci njuumte yooyu ndax mi ngi jàng xadis bi di ko laana allahu al muxallila wal muxallila la te du noonu loolu njuumte la laana allahu al muxallila wal muxallala la bu njëkk bi mooy al muxallil waaye bu ñaareel bi al muxallala la waaw kay loolu mooy li wér